fi moy fi nga xamé ni alayhi salaatu wasalaam bi mu joggé makka bobu mi ngi am 25 ans garab gi am na ñaari junniy at nga xam ni kenn du rasulullahi Yalla jagleel nako lu mu jagleelul kenn garab gi am na ñaari junniy at 2000 ans mu andak maysara makka moy ba def commerce jóge ci Khadija wara def commerce ñëw Cham bi mu ñëwee ci garab gi fi la tekki fi la lal di jaay wéeru ci garab gi di jaay garab gi gis na yonent bi yonent bi gis na ko mu doon kéemtaan ci jamono ah ñu baaxee leen ko nag ngir ngeen di ci barkeelu waaye itam kuy seen soppe di soppe yonent bi ngeen baxé ko ku mu barkeeloo ci gis ko xol ko xolub tabarrukan xolub barkelu kon nak ñu ngi leen ci ndokkel siratu nabawiyya yal nai, yi yonenti bi di sunu mur yal nai ñuy muram di ñaan yalla rek sa yu ñu xeyé sunu ciofel ci mom di gëna yokku la kat bo waxoon rek zahidun wala xaraamu fii ka la sama cofeel day dolleeku saa su ne kullu lahza sama cofeel day dolleeku rekk di dolleeku rekk di dolleeku waaye di ñaan feebar bi nga xam ni feebar la kenn bëggul mu wér te feebar boobu ku ku ku mu dal doo bëgg mu wér te kenn ku ne bëgg nga feebar boobu dal la maa ngi leen di ñaanal feebar boobu yàlla na leen dal feebar boobu xam nga ban feebar la feebar bu dul wér boo xam ni daf lay def góomu xol cancer de cœur boo xamante ni kenn mënu ko faj aljana rek lañ lay hospitaliser te foofa du fa fajoo ay calmants rek lañ lay jox boobu feebar yàlla ñu dal febar bo xamni hôpital bañ lay hospitaliser mooy aljanna te yow da ngay bëgg febar bi sa yu xey muy gëna yokku febar bobu moy ban lil aashiqiina lawaahijun lam yashfiha illa salatu ala nabi muhammadi mune dafa am ñoo